bismillah arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñu ngi wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey ñu ngi ñëw ak seen yóbbali bés bi di jógee ci Layène family bés bu nekk incha allahu taala di leen wax ne tey bési dimanche la di juróom-ñaari fan ci weeri rakki gàmmu waaye di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeri novembre mbokk yi ñu ànd ak ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan allahumma inni as'aluka shukru ni'matika wa husni ibadatika allahumma inni as'aluka shukru ni'matika wa husni ibadatika yow sunu borom ñu ngi lay ñaan nga may ñi ñu mën a sant sa xéwal yi ñu defal waaye nga may ñi ñu mën laa jaamu jaamu gu rafet mbokk yi mbokk yi jullit yi ñaan yonent bi daana wax naan allahumma inni as'aluka shukra ni'matika wa husni ibadatika mbokk yi yebole bes moy bi hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam atuhibbuna an tajtahidu fi du'a ala fi du'a ndax yeen julit yi bu ngeen a gorgolu ci ñaan yalla ben dañ ko ne waawa bu ko nañ ko kay atuhibbuna an tajtahidu fi al-ibad fi du'a ndax bugo ngeen ngeen gorgolu ci ñaan yalla melni melni sahaba dañ ko ne waawa bu ko nañ ko kay moy ne qulu allahumma أعنا على أعنا على شكرك وش على أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم إني اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك yow ya sunu borom ñu ngi lay ñaan nga meñu kattan bañ man la bañ man la sant waaye nga meñu kattan bañ la tudd lu bari la siikar waaye nga meñu kattan bañ man la jaamu jaamu ko rafet yonent bi nee su fekkee da nga bëgg a góorgóorlu ci ñaan di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma a'inna ala dik shukrika wa dikrika wa husni ibadatika allahumma a'inna ala ala shukrika wa dikrika wa husni ibadatika yow sunu borom ñu ngi lay ñaan nga may ñu ñu am kattan ba man di la sant foo toll fuñ toll waaye nga may ñu kattan bañ mën la ja duñ di la tudd fuñ toll waaye nga may ñu kattan bañ mën laa jaamu jaamu ko rafet mbokk yi jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñu ngi wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey ñu ngi ñëw ak seen yóbbali bés bi di jógee ci Layène Family bés bu nekk incha allahu taala di leen eh, wax ne tey bési dimanche la di juróom-ñaari fan ci weeri rakki gàmmu waaye di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeri novembre mbokk yi ñu ànd ak ñaan yoon ci sallallahu alayhi daan wax na allahumma inni as'aluka shukru ni'matika wa husni ibadatika allahumma inni as'aluka shukru